nee moom alhamdulilah ndax de daw nañ ko si jàmm kenn gaañuwut ñoom ñu yëpp si jàmm kay alhamdulilah. non euh, première bi moom dëgg la expect gu ma na waaye kontaan naa bu baax waaw si sant yàlla rek. waa kontaan naa si bu baax a baax a baax ndaxte gém bi moom neexut waaw gém bi moom neexut moom. yan jafe affaire gi moom daw nañ si normal moom dem na nice waaw amul benn jafe-jafe foofu parce que kenn daanu kenn gaañuwut boobu sant yàlla waaw kontaan naa bu baax a baax nag. wax nan nga ba la rek da ngay rek. affaire gi moom boo góorgóorlu rek am dara waaw luy sa eenee da ngay wax ne man dama bugg a wiin dama bugg a nekk force person waaw léegi dafa des nag sa liggéey waaw léegi liggéey naa nag waaw liggéey naa moom waaw. léegi wax sa naataango ñeneen ñi loo leen wax. waaw dëgg la gars yi jàmbaar lañ try nañ suma club bi tam liggéey na pour man trop waaw gars yi try nañ bu baax a baax ak ñu ma mujjee nekkal tam si force groupe bi tam tam try nañ bu baax daaw bi moom neexu ñu yëpp ñu yëpp am yéeg yéeg métit bi waa ñu yëpp tamit en nañ ko si jàmm waaw sant yàlla bu rëy waaw laas euh, laas bu gaay defoon noonu ñëw nañ bi tam ñëw nañ sant yàlla ndax yàlla def na ñu ngi dund ba léegi kay boobu moom sant yàlla bu rëy nañ ko fekkee déwénati déwén mu fekk jën na développé nii tamit waaw loolu la ñu ñaan yàlla mu jën a développé waaw